Cheikh Tidiane euh, Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. Cheikh Tidiane Cissé nga nekk euh, secrétaire général de la fédération des agriculteurs du bassin arachidier actuellement euh, nag la campagne bi def parce que gis nañ ni mi ngi taw un peu partout est-ce que am ngeen ay jafe-jafe. waaw campagne bi de wax dëgg yàlla moom xaw nañ ci am tuuti jaaxle jaaxle dans la mesure où. Euh, comme li nga wax ni mu ngi taw partout je ne pense pas am na zone yu muy taw mais am na zone yoo xam ne ba léegi seen taw yi taxuti koy mel noonu ndax fii ci zone bi may wax ak yow ñu ngi ji mais nji mi sax taxagu koy mat ba pare liñ ji aussi manqué na taw ba nga xam ne est bu yàggee tuuti est ce du yàqu parce que comme ni dugub dugub bi dañ ko jiwoon mais dafa yàqu ba ñu bëri ñu ngi jiyaat mais aussi liñ jiwoon ci après parce que dugub moom bul umpule ne dañ koy faru maanaam dañ koy jiital balaay taw di ñëw bu taw ñëwee fekk mu ànd ak moom jog mais aussi li mel ni mboq ak euh, gerte nga xam ne moom dafay buggu ndox moom dañ ko teeloo dañ ko ji après mais taw it mén méngoowul ak dégg maam ñu mu war a jóge te yaakaar naa ne su tawul ci ay fan yu néew yaakaar naa ne ñooñu ci mën nañu yàqule te lu mel ni gerte dafa cher te yaakaar naa ne su tawul mun na indi ay jafe-jafe yu nga xam ne dafay nekk problème par contre nag am na localité yi yoo nga xam ne vraiment fi nekk nii ñun ñuy ji ñoom ñu ngi bay loolu aussi nekk na jafe-jafe bu nga xam ne jaaxal na nit ñi te yaakaar naa ne météo euh, ci fan yi yëpp ñu ngi ñuy wax ne taw yi dana bëri dana am doole finalement na ngeen na ngeen denc seen euh, mbiri nit ñi nañ dem ci kër yi mais finalement ñu doon wax daal ñun taxu ñu gis ko Hmm. bu weesoo mbirum taw mi amoo leen beneen jafe-jafe ci campagne bi. waaw campagne bi de fi nekk nii wax dëgg yàlla li ci des mooy euh, lu mel ni euh, engrais bi ak euh, semence yeeg yi ci war yooyu yëpp yooyu yu ci bëri bëri bëri ñëw nañ te ren spécial li ci spécial mooy que ne li doon xew ci at yële nga xam ne ci ay kilo lañ ko doon joxe léegi ci ay saak la ñuy jox parce que boo xoolee ci xeet engrais yëpp bu ci nekk paysan bu ci nekk am nga ci ñaari saak ba ci ñetti saako. ci lu nga xam ne peut-être yow boo doon am sax ay kilo nga daan am wala doo am sax saako bu mat ñu complété la je pense que ne loolu am na ci njëriñ ah, lii problème bi nag mooy jiw jiw moom yàgg nañ koy wax jiw moom wax dëgg yàlla dafa nekk lu nga xam ne amatul lu nga xam ne lu qualité la te léegi yaakaar naa ne état bu bëgg a farlu ci mbir mi il faut que mu tetaat jiw bi ñu xoolaat ni ñu koy tëggaatee ba nga xam ne danañ aw jiw bu mucc ay bu nga xam ne buñ jiyee yaakaar ci li nga xam ne ëllëg ak sibit nañ ci am ay rendement yu baax mm-hmm. euh, nga gis état aussi pour suqali mbay mi mais aussi euh, pour euh, utal ndaw yi xëy mi ngi lancer ay activités agricole ci campagne bi naka nga gisee initiative bi baax na baaxul naka la état bi mën a réussir ci mbir mi waaw initiative bi wax dëgg yàlla boo koy xool loolu existé woon na fi waaye ñoom comme ni ñu waxee ñoom dañ ne bi dañ koy changé changé ko ba nga xam ne euh, dootul nekkati folklore bu nga xam ne dañuy nekk ay xumbeel mais dañuy yóbbu gune yi ci terrain bi loolu nag dana jafe dana jafe dans la mesure gune yi xamuñ liggéey parce que jàngaluñ leen liggéey léegi nag il faut ñu am fexe yu mat sëkk yu nga xam ne danañ fexe ba gune yi mën a liggéey parce que tuddul loolu rek yaakaar naa ne liggéey dana xaw a jafe parce que gune yi liñ xam rek Euh, waxtaan ba ngoon di naan ataay ba ngoon ñu dem ci terrain yi football yi te bu boobaa loolu situation buñ ko doxalee je pense que ne mun na am réussite biñ ci waroon a am duñ ko am donc léegi laaj na vraiment ñu am stratégie mata mata mata mat xaw ma nan lañ koy doxalee pour mën a motiver booy pour ñu dem ci terrain bi mun a liggéey parce que gune mooy liggéey te am nañ doole te gune yi vraiment booy xool ci tranche bi gune yi ñëw ci ëpp je pense que ne buñ leen mun na am da maam mu nekk lu am solo yoo xam ne dinañ mën a jëriñ réew mi. Mm. te wax dëgg yàlla réew mi dafa laaj nag da nga am euh, gune yi da nga ma réew mi pour réew mi mën a jokkoo fi mu nekkoon pour mën a dem ci nga moom lañ bëgg. Mm-hmm. naka la ñu mën a def exactement pour euh, xale yooyu mën a dellu ci tool bi tool yi parce que am na ñoo xam ne euh, surtout ay baykat lañu mais mbay mi doxul ñu mujjee bàyyi tool yi ñëw fii nekk ay tablier marchand ambulant ak yu demee noonu wala di dawal sax ay càq-càq. waaw xam nga loolu li ko waraloon mooy que ne bu njëkk vraiment bi sécheresse bi ñëwee soixante douze euh, mbay mi dafa demoon ba nga xam ne wax dëgg yàlla taxatoon koy melati noonu léegi nag euh, nit ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo doon dem ci ville yi di ñëw di indi ay weccet bu nga xam ne dégg nga maam dana daan permettre ñu mën a lijjanti problème mu seeni famille loolu poussé à que jeunes yi dégg nga maam génn ci vi euh, ci village yi dem ci ville yi mu ñu koy wax exode rural léegi nag situation biñ toll nii je pense que ne ah, ñoom li nekkoon ci ville yi presque léegi amatul njëriñ parce que ville yi fi mu nekk nii saturé na ba nga xam ne jeune bi dafay liggéey ba ngoon du am sax mille francs bu mu dundee bugg ci lekk bugg ci naan du mën a tee yore këram du mën a tee yore ay ay ay ay ay ay waajuram donc je pense que ne léegi devoiru état la pour mu def de sorte que jeune yooyu dellu si ci àll bi ndax àll bi su mën a dundal rek jeunes yooyu je pense que ne dana permettre jeunes yi da nga maam ñu mën a ñëwaat dellu si ci àll bi parce que bu njëkk mbay mii mi toon gune yi léegi nag bu mbay mi mën a dundal gune yi je pense que gune yi dinañ mën a ñëw mais boo xoolee sax même fi nekk nii si mondial bi ñu ñëwul sax ñu ngi ko jakarta yi di dawal te jakarta yi aussi boo amee mën na am ay deux mille francs wala mille cinq cent loolu mun a taxaw taxaw da nga maam nga mën a taxawal lu nga xam ne da nga maam ëllëg ak si biir da nga si mën a yore sa njaboot tabax sa kër lijjanti say problème say doom buñ feebaree nga faj leen da nga maam suñ jàng jotee nga mën leen di jàngloo je pense ne loolu du mën a nekk yaakaar naa ne daal delloosiwaat nit ñi ci àll bi dina am solo bu boobaa dégg nga am ñu xool nag yan stratégie la ñuy def ba nga xam ne lépp lu ñuy bay dana leen mën a indil alal ju nga xam ne danañ mën a yore seen njaboot yore seen i waajur bu boobaa dinañ mën a toog. Mm-hmm. Euh, naka nga apprécier euh, seen ministre bi di Mabouba Diagne parce que gis nañ ni tout le temps mi ngi ci terrain bi naka nga ko gisee. waaw Mabouba Mabouba vraiment excès d'ambition la gis ci moom parce que moom vraiment du toog du noppaleku mu ngi dem ak ñëw mais je pense que ne am na lu ko gën a efficace parce que efficace mooy que ne euh, doo toog rek di wër di wër di wër mais il faut que dégg nga maam nga xam li xew dégg nga maam jéem koy résoudre li xew mooy fi mu nekk nii. boo xoolee ci monde rural bi moom dajeegut ak kenn dajeegul ak kenn dégg nga maam ci organisation yi nga xam ne ñoo daan toog di ko wax li nga xam ne moom moo xew mais aussi li xew mooy que ne fi mu nekk nii ah, ah, àll bi fi mu nekk nii booy xool tracteur yëpp ngeen wàll ji paat nañ te wax dëgg yàlla loolu situation la bu nga xam ne dégg maam ñoom tracteurs yi fi dugaloon mënoon nay nekk lu nga xam ne mënoon nay développer agriculture bi mais ñëpp ñu ci bëri paat nañ amuñ pièces détachées amuñ mécanicien loolu dafay nekk problème dégg nga maam semence bi aussi nekk na problème ndox mi nekk na problème parce que ndox dégg maam mooy développé réew mooy développé agriculture yooyu yëpp benn amu ci yaakaar naa ne ci yooyu la waroon a toog di xalaat et non pas dem wëri ji benn baykat bu nga xam ne mu ngi bay nga jaajëfal ko wala laaj ko ay soxlaam je pense que ne loolu du yoon bi nga xam ne moom moo gën li gën daal mooy mu toog ak nit ñi nit ñi wax ak moom ñu def étude xam ne dégg maam mooy nekk étude yi nga xam ne mooy jafe-jafe baykat yi mu xam ko dina maam dans son ensemble nga xam ne lépp lay jëriñ muy euh, machine mécanisation muy euh, ndox mi dégg maam muy semence bi muy dégg nga maam fertilisation des sols yooyu la war a travailler ba nga xam ne ëllëg ak si euh, danañ mën a espérer lu ñuy wax ñoom souveraineté alimentaire bu boobaa mën nañ koy am mais su dul loolu dem di ñëw du ko mën a régler moom. Euh, euh, autosuffisance euh, alimentaire est-ce que am nga yaakaar régime bi fi nekk mën ko def avant seen premier mandat bi di jeex. waaw je pense que ne buñ amee buñ amee pas-pas bi war na mën a nekk mais nag nii ma ko gisee moom buñ deful ndànk bootu danañ delluwaat fi nga xam ne foofu la gars yi amee woon problème te bu boobaa souveraineté alimentaire bi du am. mais li mën a xew daal mooy il faut que ñoom dégg maam ñu def une rupture totale parce que gis naa ne euh, situation bi ni ñu ko bëgg doxalee nii du dem nee la ne ndox mi foog ñu xool ñoom ñu ngi wax les autoroutes de l'eau mais aussi man li ma gëm mooy les routes de l'eau mooy les anciennes routes de l'eau les vallées fossiles là loolu moom mooy alimenter boppam ndoxu taw yi d'abord ñoom ñoo koy alimenter ñu seet nan lay taxawee bu ñuy mën a def nag autoroute de l'eau après ñu xool ko dégg li nga xam ne mooy semence bi loolu c'est primordial semence yi buñ ko defaru nit ñi dañuy bay ba gannaaw suba ci ngoon duñ mën a am rendement yi war mais am na yenn spéculation horticole yu nga xam ne vraiment seen rendement yi baax na diggante pompiteer diggante soble diggante carotte dégg nga maam ak yeneen yi nga xam ne moom moom mooy ay ceeb bi ci amoon na ay baaxoon na mais demoon na ba ci biir dégg nga maam ñu dugal ci ay parasites yu nga xam ne ñoo xawoon a yàq ceeb bi ba ceeb bi waroon a yàqu ba 2017 la waxoon danañ am autosuffisance parce que riz pluvial bi amoon ci apport bu mag mais finalement baykat yi dañ dem découragé ci semence bi nga xam ne baaxul finalement ñu dégg delluwaat ci dugub ji loolu moo indi problème yu bëree bare bëri je pense ke ne daal suñ bëggoon a defar daal danañ dégg maam xoolaat situation bi pour balaa seen mandat di jeex ñu mën a am dégg maam souveraineté alimentaire su du loolu dañuy passé à côté. merci beaucoup Cheikh Tidiane Cissé. ci tontu bi nga tontu suñuy laaj ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup. ñuy fàttali ni Cheikh Tidiane Cissé yow yaay secrétaire général de la fédération des agriculteurs du bassin arachidier jërëjëf